gis lu baax jafe ma bëgg nag waxtaan ak képp koo xamante ni jigéen nga yaa xam da ngay sëy wala sëyoo rawatina ñi nga xam ne célibataire lañu toll ci utum borom kër. aouzu billahi min asheytaani rajim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa chers internautes chers abonnés ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm nag te di ko sàkku si yéen comme ni ngeen ko xamee nag Firdaws coaching daf fi nekk ngir daal di leen indil yokkute indil leen yokkute nag dans tous les sens comme ni ngeen ñu xamee rek macha allah ci développement personnel et spirituel comportemental et tout d'habitude nag comme niñ ko yàgg xamee dañuy fas dañuy waxtaan ak yéen tout le temps ci li nga xam ne mooy yokk sa bopp li nga xam ne aussi mooy li ñuy inciter femmes yi surtout que ñoom wax ci femmes yi waa soyez indépendante financièrement parce que dund gi mais dafa loo xamante ni moom la ñuy fàtte di wax jigéen ñi mooy li nga xamante ni mooy euh, nañu fexee nekk des femmes intéressantes nekk femme intéressante enfin pour atteindre le succès waaw. innover sa standard tey mooy lan mooy yaa ngi nekkoon ren niveau un. nga bëgg a yéeg niveau 2 wala niveau cinq wala niveau 6 te loolu ku ne xam na ni mënoo ko def te développé woo li nga xam ne mooy say compétence intellectuelle ak li nga xam ne aussi mooy say man sa mindset kon su ñu waxee développement personnel tout le temps ñu ngi fexe di leen jox confiance en soi di leen jox estime de soi di leen jox aussi li nga xamante ni tey mooy image bu positive ci seen bopp jamono ji gis nañ ni euh, doomu aadama yi dañu nekk ci distraction bu bëree bëri banalité dafa bëri te toll nañ ci jamono boo xamante ni surtout nag yéen célibataires yi da ngeen xam ni comme gis ngeen ni concurrence bi ruddee terrain bi daal di métti lool gis lu baax jafe ma bëgg nag waxtaan ak képp koo xamante ni jigéen nga yaa xam da ngay sëy wala sëyoo rawatina ñi nga xam ne célibataire lañu toll ci utuñu borom kër. tey jigéen dina nekk koo xamante ni tey di nga élever sa ba nekk niveau boo xamante ni góor ñi nga xam ne ñoom nga ci ñoom nga teg bët dinañ mën a intéressé wu ci yow. parce que la plupart du temps dañuy nekk rek di wax jigéen euh, nekkal femme bu indépendante jéem a am développement personnel jéem a ni mais tey lu ñu bëggoon waxtaanee gi moom naka ngay cultiver sa bopp ba nga nekk femme boo xamante ni que ça soit muy intellectuellement muy comportementalement muy li nga xam ne aussi muy spirituellement di nga nekk une femme boo xamante ni da ngay élever say pour atteindre li nga xamante ni mooy le succès succès nag ko waxee du dara du loo xamante ni tey bien-être de soi. nekk en harmonie ak sa biir ndax bëri na ko xam ne mu ngi développé li nga xam ne aussi mooy euh, développement personnel am développement spirituel am mu des aussi li nga xam ne mooy autodiscipline sa bopp xam li nga bëgg xam fi nga jëm loolu nekk loo xamante ni jamono bi ñëpp ñu ngi ciy wax waaye atteindre ko des fois clé dafay xaw a jafe lu tax muy jafe mooy dañu dul tracé yoon bu jub ndax xam-xam dafa nekk loo xamante ni dafa sew te yoon bu jub bi nag du dara lu dul jamono ñu toll ku yaboo na nga jàngi waaw suñu nee jàngi nag jàngal li nga xam ne mooy gëm nga ni lii moo lay jëmee kanam moo lay intéressé tey damay wax ni jigéen bu nekk tey surtout na nga nekk jigéenu jullit waroo nekk ignorante ndax yàlla suñu borom gis nañ ni bi muy wàccee alxuraan suurat bi mu njëkk a suñu yonent bi sallallahu mooy iqra pour lan pour mu jàng pour mu instruire pour mu xam àddina kon ñun war nañu intéressé wu suñu diine mais aussi intéressé ci lépp loo xam daf ñuy wër te di ñu jëriñ suñu àddina waruñu ci nekk ignorante kon war nañu fexe di jii a gëstu ci li nga xam ne mooy développement personnel gëstu ci li nga xam ne aussi mooy lépp lu ñuy dimbali ngir ñu mën a gestionner suñuy émotion daal di autodiscipliner suñu bopp éduquer suñu bopp defaraat suñu bopp pour lan pour nekk ay nit yoo xamante ne duñ doon ay nit yu banaan doomu aadama bi nga nekk ak sa borom kër la plupart si famille dañuy wax ni waaye sama jëkkër du waxtaan ak man sama jëkkër tout le temps mu ngi nopp wala su may wax ak moom du ma faale parce que tu n'es pas intéressante ma chérie quand tu es intéressante tu traites des sujets et des arguments yoo xam dafay captiver nit ki nit ki day xam ne kii savoir lay waxee xam-xam lay waxee elle est tellement intéressante loolu da koy liggéey ci sa bopp kenn tëbul tëb rek nekk femme boo xamante ni tey sooy wax ñëpp dañ lay déglu am nga Sénégal dañuy faral di wax naan waaw euh, wax wax ñu déglu la nday bu liggéey laag nday bu sonn laag booy wax théorie yi nekk teg nañ ko ci waaye mbokk yi pour nga nekk une femme wala un homme intéressant ba nga xam ne soo waxee dama ne rek ñëpp déglu la il faut nag nga travailler li ci jiitu mooy sa nit bu instruit nit boo xamante ni da ngay intelligent travailler sa élocution waaw ni ngay waxee travail say émotion parce que tey sooy wax sur le coup de l'émotion wala sooy waxtaan ak nit wala nga xaar sa borom kër bokku leen jëm waaye rek sa xol jóg wala nga commencé wax ji dëgër wala tempérament bi yéeg kooku du la déglu pour ñu déglu la il faut que nag nit bu rationnel dissocier li ngay wax ak ki ngay waxal ak say émotion nga nekk aussi nit boo xamante ni aussi li ngay wax danga koy teg ci xam waxee xam-xam aussi des fois ju nangu ñu weddi la nangu ñu remettre en cause li ngay wax nangu ñu bañ a ànd ak yow parce que soo melee noonu tey kii wax doo ko jugé mais da koy questionné ci li nga xamante ne xamoo ko doo ko ne ah lii de moom nanga man ne man li laa dégg fi na non mais da ngay nekk femme boo xamante ni da cultiver benn façon éducation benn façon dal benn façon sérénité boo xam ne tey boo tëniree ak sa borom kër débat yaa xam débat politique la yaa xam débat science la yaa xam débat religieux la yaa xam débat bu mën a doon da koy tenir même bu dee débat sociologie ci bi mariage yi sëy yi tu l'apportes des des choses yoo xamante ni c'est concret doo wax rek uniquement comme ça pour wax tey looloo tax tey nga gis góor boo xamante ni su gisee une femme boo xam dafa intéressante day waxtaan ak moom ci yenn domaines yi kooku mën na ko captiver parce que dañuy wax jonge jonge jonge jonge comme ni ma ko jonge dafa bëri am xaay am xamante ni jonge terre à terre mooy bi nga xam ne moom néeg ba rek la ndax femme yi jàpp nañ jonge sol simi néeg ba taaj teggi déedéet jonge du rek foofu jonge attitude la waaw ta manière de faire ni ngay waxee ni ngay doxee ni ngay toogee jonge aussi élocution la ni ngay waxee ni ngay articuler ni wax ji di leere ni ngay amee ponctualité sa tonalité de voix waaye jonge aussi xam-xam la sa manière bi ngay séduire nit ki ci waxtaan kon bu ñu bàyyee loolu yëpp xel dinañ mën a xam yaa xam na ngay sëy yaa xam sëyoo war nga defaraat sa bopp en tant que femme ndax dañ toll jamono bi nga xamante ni tey bu ñu wax séduisante nit ñi jàpp ni séduisante wala séduisant c'est ñi nga xam te dañuy séduire relation de couple relation d'amour fekk na c'est pas tey ba ci diine nit ki soo koy waar si boo ko séduirul boo ko captivé wul du waaru léeg nit ki balaa nga koy wax mu dégg su la gisee li muy njëkk a gis na ko frappé sa image na ko frappé ban interprétation lay am ci sa image ni ngay waxtaanee ak moom dal gi gestion des émotions captiver bi ñu koy captiver li nga xam ne aussi mooy ki ngay waxal ban niveau la toll lu def ci am solo. parce que su fekkente ni maîtriser woo sa public maîtriser woo sa communauté wala maîtriser woo bokk sa jëkkër wala sa doom yaa xam tuuti ba ci mag ki ngay waxal njuumte yi day bëri incohérence yooyu day bëri te tout le temps di ngay faral di gis sax ñu lay wax ne da nga ku nekk naan dama am problème communication parce que communication mbokk yi ça se travaille dañ koy jàng bokk na ci parce que doomu aadama li nekk ci biir xel bi mooy génn ci làmmiñ bi li nekk ci xel bi mooy feeñ aussi ci jëf yi kon loolu suñ ko gisee war nañu mën a xam ne waruñu mën a nekk nit boo xamante ni dañuy répéter rek comme perroquet wala di répéter nit ñi di wax mais maanaam nekk nit boo xam ne des fois argument ak sujet yi ngay tenir soo toogee ak say moroom jigéen di nga gis ne sa dépassé nga leen largement te lool kon daf ci bokk kon bi benn terrain ak cercle relationnel boo xamante ni ñi ngay jëflanteel da ngeen di bokk vision bokk gis-gis bokk jëmuwaay te loolu tey macha allah bu ñu xoolee ñun am nañ suñu communauté Firdaws Coaching nga xam ne femmes yi nga xam ne atteindre le succès rek ak devenir intéressante ci gëstu seen bopp jàng évoluer bu looloo leen intéressé ku mu intéressé mën nga ñëw ci suñu privé ñu daal di lay dugal ci forme groupe yooyu nga xam ni groupe gratuite la sama ay communauté la bokkul ak 5D bien sûr parce que 5D foofu yeneen level la beneen bi aussi mooy savoir di lire yaa a des livres yoo xamante ni tey par exemple suñu xoolee euh, livre bi nga xamante ni mooy euh, atteindre l'excellence bu Robert Greene ak aussi les lois du succès bu Napoléon Hill ce sont des livres très intéressants très instruits pour nit ki nga xam ne dafa am foo bëgg a egg ci sa dund. ba pare bu ñu demee ba xool loolu ba pare mooy doomu aadama bi à chaque fois nga commencé nag euh, am fi nga bëgg a jëm am ay objectifs parce que nag moo évoluer te amoo objectif. ah lu tax nga bëgg a lu tax nga bëgg a améliorer lu tax nga bëgg a defarawaat objectif. parce que soo koy def rek parce que dafa xew parce que ñëpp a koy def parce que ñëpp a koy seetaan doo ci am benn résultat parce que après mais soo koy def parce que am na motivation bu nekk derrière am nga objectif boo bëgg a yaa ngi visualiser loo xamante ni tey xam nga ni lii ma visualiser dinaa ko dund day nekk loo xam ne il foog mu nekk lu fort ci yow. kon loolu lépp suñ ko boolee kon mën nañu gis ni avec le temps say objectif di ko atteindre kon ñu bàyyi xel aussi xam ni li nga xamante ni tey mooy yoon boobu boo ko jëlee. di nga commencé gis nag ñoo xamante ni nag dañ lay titiyee dañ lay sànni xeer wala sax dañ lay wàccee parce que nag dañ nekk ci boo xamante ni ah ku ne xam na ni nit boo commencé jël yoonu mbaax yoonu yokkute di nga gis ñu lay sànni ay doj waaye tubaab dafa ne kenn du sànni xeer ci garab bu amul ay fruit ndax garab bu ñu ko commencé njoos xeer rek mooy am na ay meññeent kon da ngay gis nit ñi nga xamante ni tey dañ la bëgg a wàccee parce que gis nañ yaa ngi yéeg te bëgguñu nga raw leen di dégg dafa fuuy xamul bokkoon moo dafa jàpp ni moo gën a xam ñëpp di yow bu commencé nekk ci développement personnel ba tay xanaa nga sa loo di bu dégg bu découragé la mais soit modeste soit humble ba pare nga respecter li nga xam ne aussi mooy sa intérieur respecter aussi li nga xam ne tey mooy sa notoriété te daf ci bokk ci tey euh, xam fi nga jëm. mooy nit ñi lay sànni xeer nga wala nit ñi lay rabaisser wala nit ñi nga xam ni d'habitude ay énergie négative lañu ay manipulateurs lañu dañu toxique nga xam mu leer la nit ñii sa évolution bëgguñu ko te tout le temps ñu ngi continuer di wax si yow bu leen accorder benn crédit maanaam tontu leen mooy yaa ngi leen di may sax ñu am importance. le fait que tey nga ignorer leen dëgg sa tànk ci li ñu wax doo leen faale daf lay may tey nga daal di mën a am sa maîtrise jàngal sa bopp war a noppi ci yenn yi boo waree xoox ci yenn yi am na ci yoo xam ne jarul sax tontu. beneen bi tamit mooy nga travailler li nga xam ne tey mooy sa confiance ci di jëm tamit ci sa wàllu physique parce que nag jigéen ñu ba dañu am problème confiance physiquement parlant ñii seen physique lii neexu leen wala lii neexu leen wala dañu am yenn complexe yu ñu nëbb dañu am yenn nit ku nekk tey comme niñ ko xamee am na lu la jàpp kenn par exemple nu nul n'est parfait sa corps ni la yàlla bindee admirer ko ni ngay solo tu peux te mettre en valeur mën nga fexe valoriser sa ni la yàlla bindee tey damay wax ni nit ki di nga jaay dara amul benn valeur nga mettre ko à valeur tey sac amee boo ko romboon ñu teg ko di nga gis sac bi rafet mais tey boo gisee nit gàddu ko sañseel ko sac bi day gën a am valeur tey col bii bu ñu ko lemee wékk ko ci vitrine ci vitrine mën na am benn valeur te pourtant Fatima Zahra su ko muuroo modèle yi mu ciy def fantaisie yi mu ciy def mun nga ko ne ah col rafet na foo ko jëndee kon nit ki le fait nga nga bëgg a nekk une personne intéressante une personne boo xamante ni tey danga bëgg a atteindre le succès dafa am naka ngay comporté woo dafa am aussi naka ngay valoriser sa image parce que sa image dafa important nit ñi bu ñu la gisee li leen di njëkk a attiré li leen di njëkk a frappé ci yow mooy sa image li leen di njëkk a frappé ci yow mooy sa attitude travailler sa attitude bu dee da nga am attitude boo xam ne dañu siy faral di critiquer di sikk et tout jéemal nga def pause nga relater nga jël bëgg ak feuille nga xool lan laa war a rectifier lan laa war a dolli lan laa war a n'hésite pas à ce que ngay jéem a inscrire ci des formations yoo xam daf lay permettre boo fa jógee lépp li nga bëgg nga daal di koy atteindre tey bu ñu wax investissement de soi ñu bëri jàpp ni investissement de soit xëy na euh, investir pour am lii pour am lee mais investir ci sa propre comportement sa gestion de de l'émotion li nga xam mooy sa say traumatisme d'enfance lépp li nga xam ne gis nga nii daf lay gêner et que depuis l'enfance ñu ngi la koy sikkee wala ñu ngi parce que àdduna bi amuñu fi lu dul defaru ngir ëllëg ak ci bis yàlla suñu borom mën a kontaan ci ñu ñu ngi kontaan suñu bopp ñu ngi jéem a ñu ngi jéem a defaru ba nga xam ni même bu nit ñi kontaanul ci yàlla kontaan na ci ñu te ñu kontaan nañ suñu bopp on est bien avec nous-mêmes en harmonie ak li nga xam moom la ñuy ak li nga xam ne moom la ñuy dund kon li am importance mooy nit ki sa avancement sa évolution yow sa jëm bopp nga sentir ci sa bien-être yow sa jëm bopp nga gis ci sa bopp nga sentir que ni daaw ak ren vraiment beneen nit la te beneen nit bii ma doon tey sama version bi ça me plaît te sa nouvelle version bii nag du ñëpp ci war a accéder waaw kon ceci dit que comme ni ma ko waxee trier sa entourage xool ñi ngay àndal ñi nga xam dañuy jëmal ci kanam parce que nag dañ nekk société boo xamante ni xëcc nit ñu jëm ci suuf moo leen gën a yomb maanaam wax nit ay succès mu jëm ca kaw. parce que bokk suñu culture tey di wax nit ki non tu belle tu brave tu courageuse loolu daanaka dañ naan moo dañ koy jaay di nangam sangam xamuñu wax nit ay mbaax mbaaxam kon nañu jéem a travailler loolu ci suñu bopp te bu ñu xaar kenn waxal ñooy kan wala lu ñu mën ak lu ñu que mën nañ ko atteindre suñ ko bëggee kon fii rek la ñuy yem ak yéen di wax bu leen fàttee abonné suñu canal partage vidéo bu beneen